بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مبكي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كم نينو لنكو وخيوون نوي داجي دي داف جوتايو مجالس واي جانغات او مبيند بو خامني نيونكو السلف مع القران موي ماكي تيمب nan la ñu daan dundee téere borom bi subhanahu wa taala bii di al karim nga xam ne moom mooy wettali béppi jullit ñu joxoon leen dig daje dimanche bu nekk ci kër gi di la maison du Coran au Sénégal fu waay nekk ci àdduna bi di topp mbind yi yal na yàlla jariñ nu jariñ leen ci alquran al karim tey nag sunu jotaay bu njëkk la ci asalafu ma alquran ñu war a xam alquran al karim fan la ñu jële waaye ak fan la ñu yegge ak alquran doomu aadama bi nan la ko soxlaa ci dundam moo tax salafu saalix ñu daan wax naan nit ki aajo bi mu am ci alquran moo ëpp aajo bi mu am ci lekk ak naan ak noyyi ndax nit ki su amatul alquran rek na ko leer ne dundut na ko leer ne dundut mën na bañ boole boppam ci ñi nga xam ne ñoom ñooy dundu loolu nag suñ ko waxee alxayaat ar ruuxi la ñu wax maanaam dund goo xam ne dund ku ruux doomu aadama bi ñëpp xam nañ ne aduna tolloon na foo xamante ne nit ñi ci boppam am ay dëkk yoo xamante ne eh, dem dëkki ak njay àll yi ca àll ba maanaam nit di daw fàq dem ci àll ba samp fa këram moom mooy ëpp sécurité mu dëkk ak doomu aadama yi tey ji soo xoolee réew mi balaa alquran di fi dugg maanaam jamono ceddo sax ñëpp xam nañ ne yéen ñi di suivre am na dëkk yu bari yoo xam ne yéen a nga fa toog di suivre émission bi tey jii daw làqu la woon maanaam seeni maam dañoo dawoon seeni moromi doomu aadama ba mën a sanc ci àll boobe mën a muñ kon tey jii doomu aadama su demee bay daw moroomu doomu aadamam dem dëkk ak njaay àll yi kon nga xam ne doomu aadama na xoolaat boppam jamono rawatina xasatan li nga xam ne mooy al umma al arabiya réewu arab yi ñoom ñu tolloon foo xamante ne wax dëgg fi yàlla ci ndëngate waaye ci njuumte seytaane daal di leen mën nit ñi ku ëpp sa morom doole daal di jël jaase teg ko ca ga daal di rey ñoom ñu dem ba seen doom yu jigéen amatul sécurité doom bu jigéen amatul sécurité ci kër pappam soo amee doom bu jigéen da ngay wax rek daal di suul soo amee doom bu jigéen da rey jigéen doyeetoo ko dara rawatina saa yu dégg sa soxna am na doom nga lacce ñu ne la doom bu jigéen la am da ngay ñëw daal di jël doom ja daal rey ba pare nga gedd soxna sax mën nga ko gedd atub lëmb nga jàppee ko sobe moo tax woy woowu si woon ca maali abi hamzata laa yatina يذل بالبيت الذي يلينا غضبان ألا نلد البنينا والله ما ذاك في أيدينا mu nekkoon way wu daw yaram nga xam ne jigéen ñi daan nañ ko way su ko jëkkëram géddee ci loolu jëmm yooyee nga xamante ne am nañu bokk ca ñoom ña nga xam ne ñoo doon taxawee yooyu jëf ci aw ndiir gu ndaw ay at yu tuuti nga gis ñoom ñu daal di soppeeku nekk a'immatan lil umma ñu mujjee nekk ay njiit mujjee nekk ay imam hudaatan lil bashari wal bashariya ñu mujjee nekk ñoo xam ne dañuy gindi li nga xam ne moom mooy doomu aadama ñu nekk ay nit ñu jub qawwaamuun sawwaamuun ay nit ñoo xam ne guddi ñoom ñu ngay naafila di ja jalo ak borom bi subhanahu wa taala di deylante ak moom bëccëg foo leen fekk ñoom ñu ngay woor ñu ngay jihaad ci yoonu yàlla soppeeku nanu jël seen doomu jigéen ñooñu nga xam ne ñoom lañ daan rey taf ci dënn ya ñu xam aqi jigéen aqi soxna دون تجمعنو جي سخنا ينحنا نولن بخام لولن الإسلام دفلنا تنك تالحرية تامة نيوم نيوم كو أميتي لنك حمد لمو مودي الإسلام لكو ورى البرم بسبحانه وتعالى نيني أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها ndax ki nga xamne da nga nekkon nit ku de so gisee mané la ko amul alquran dundo lamuy tekki moy nit ki amul alquran xolal alquran bala muy dugg ci rew mi waye ak alquran bamu ñewé ci sunu mam yi yalla yàlla feel nu leen sunu mag ñi yalla yàlla feel nu leen yàlla buur bi subhanahu wa taala neene ndax ki nga xamantene dafa nekkon ku dé fa ahyaynahu ay ahyaynahu bi nuril quran wa hidayati alquran yàlla daal di lay dundal ci li nga xamne mom moy mooy leeru alquran alquran mom moy l'islam alquran mom moy yonente bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla daal di duggal ci yow yërmande ye ci yow li nga xamantene mom modi al insaniya al kamalat al dhatiya al ardiya al idafiya yépp alquran daal di koy ñëw yee ci yow wa jaalna lahu nuuran yamshi bihi fi nnaas yàlla daal di lay defal leer goo xamante ne ngay dox ak moom ci diggante nit ñi leer goo xamante ne daf lay wan lan moo baax lan moo bon moytu loola lan moo bon def loola lan moo mooy lu mooy lu baax yëg loola la nga xamante ne mooy al insaniya wa jaalna lahu nuuran yamshi bihi fi nnaas kaman mathaluhu fi dhulumaati laysa laysa bi xaariji minha ndax kooku mën na yem ak ka nga xamante ne moom mu nga nekk di dund ci ay lëndëm kon alquran ki koy dund dafa nekk ci leer alquran ki ko dundul dafa nekk ci lëndëm kon mbokk yàlla na nu yàlla dunduloo alquran al karim yàlla waxaat ca surata maida qad jaakum min allahi nuurun wa kitaabun mubin yéen doomu aadama yëpp dikkal na leen jóge ci boromam borom bi subhanahu wa taala muy lan nee ne nuur aw leer alquranul karim su duggee ci sa xol daf koy leeral leeral say bët leeral say loxo parce que sa loxo dootul yóotu loo xamante ne alquran al karim tere na ko say tànk dootul dem foo xamante ne alquran tere na ko da ngay yëg la nga xamante ne mooy al insaniya da daf lay wan ne yow doomu aadama nga doo njaay àlla daf lay wan la nga xamante ne moom mooy lépp lu la jege nga daal di koy respecté xam kan mooy sa borom subhanahu wa taala nit ki mën na am adduna ak li ci biir te yëgut la nga xam ne moom mooy bànneexu dund waaye nit ki mën naa bañ a mbarile waaye mu yëg la nga xamante ne moom mooy dund alquran al karim dafa neex lool dafa neex lool nga judd ci alquran di jàng alquran di jàngale alquran di dund ci alquran problème yu bare bari doo ko mën tey jii alquran soo koy dund am na yu bari yoo xam ne sax doo ko tala déglu yenn information yu bari rawatina ci suñu télé yi nga xam ne daanaka ñaar moom moo ci nekk diw sàcc nay milliard wala diw rey nit yooyu yëpp da ngay jël sa temps concentré wu ci alquran al karim alquran daf lay def beneen nit kon nanu bokk ngal la ci jotaay bii ñu ànd ko waaye ak jotaayu daara yëpp fépp foo xam ne ñu ngi fay jàngale alquran al karim ñu fexee bokk ci ñett ñi nga xam ne ñoom la buur bi subhanahu wa taala ne ñoom la donnaloo alquran te neexul nekkul ne nit ki daf lay neex rek nga bokk ci waa alquran nekkul ne daf lay neex rek ngay dund alquran nanu tàllal sunuy loxo ñaan buur bi subhanahu wa taala mu ubbi sunu dënn yi duggal ci alquran bëgg loonu alquran ba nga xam ne ñun du ñu tayal ci ca jotaayu alquran ndax yàlla سبحانه bi subhaanahu wa taala أورثنا wax naan thumma awrathna عبادنا alladina stafayna min ibadina yàlla moo tànn ci ay jaamam daal di leen donnaloo alquran alkarim muy man muy yow muy keneen ndax ñun bokk nañ ca ña nga xam ne ñoom la yàlla tànn donnaloo leen alquran alkarim ñu war koo dund waaye war cee am ngërmaandeg borom bi subhaanahu wa taala yàlla fa minhu li nafsi nga boole ci wa alquran amna ñoo xam dañoom dañuy tooñ sen bop maanaam du ñu bokkaale du ñu def lu leen di kéefarloo waaye ci biir dundu alquran googee du leen tere ña ñoom ñuy juum di def yu nekk waaye am ci ñoo xam ne wa minhum muqtasid am na ñoo xam ne ñoom dañoo digg doomu ñoom yenn xeetu bàkkaar yi yu mag yeeg yu mel noonu yëpp dañu koy moytu waaw dañuy góorgóorlu feek juumuñu rek ñoom du ñu dal mukk ca la neexut borom bi subhanahu wa taala alquran la ñuy dund di ko béggee wa minhum saabiqum bil xayraati bi idnillah waaye am na ñoo xam ne ñoom ñooy jiitu ca yiw ya yiw ya nga xam ne moo nekk ci alquran loolu suñ ko waxee mooy yiwu jàng ko yiwu jàngale ko yiwu jëfe ko jëfe ko gi nag moom mooy li nga xam ne moom la ñu gën a manqué tey ci jamono jii tey ji loolu daan ci yegg incha allahu taala ci lu bare bare ci waxu salaf yi ak ñoom nanu doon gaawe di jëfe ji la xam ne moom mooy diglee alquran waaye ñett ñi ñëpp ka tooñ boppam ka nga xam ne dafa diggu doomu ak ka nga xam ne góorgóorlu na ci cent pour cent yàlla nee ne dalika huwa alfadlul kabir bokk ci wa alquran rek moom mooy ngëneel gu rëy gi kon ñun ñëpp nañu góorgóorlu bokku ci tey jii jamono tollu na foo xam ne dëng na dëng boo xam ne ku bëgg rëcc ku bëgg rëcc fexeel yow sa xam-xam di dem ci alquran sa temps di dem ci alquran sa kattan di dem ci alquran sa am-am di ko def ci alquran ndax bu yowmal qiyaame alquran mën la taxaw loolu daañ ko ñëw incha allahu taala ci sunu yeneen jotaay yi nga xam ne moom mooy ñëw dina leer ci xadisu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam waaye dina ñëw ci li nga xam ne moom mooy waxu saxaaba yi ak ñi nga xam ne ñoom ñooy salaf rahimahumullah loolu moom moo nekkoon sunu jotaayu tey jii mbokk yi muy jotaayu majaalis teg li nga xam ne moom mooy téere bi daal di koy càmbar daal koy jéem a dundu tudd na nga xam ne noonu la ko mag ñi daan dundee waaye tey ñu doore ci alquran fan la fekk nit ñi fan la leen yóbbu ak len ci laayat yi nga xam ne buur bi subhaanahu wa taala junj na ko ci téereem lépp lu ci jub yàlla buur bi subhaanahu wa taala la lu ci dëng seen mbokk la Cheikh Omarul Fouti asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.